ah participer o ah Adama Kanté waaw Adama Kanté asalaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ bi. waaw Adama Kanté na nga def. maa ngi sant yàlla bu bëree ah, ban réaction nga am ci li xew tey. waaw lu xew fi tey dañ ci am lu ñu naqari. Mm-hmm. parce que ñun dañoo dëkk Sénégal amuñu feneen fu dul réew mi.

xam nga képp kuy sénégalais même fekke buggoo gis Ousmane Sonko buggoo koo dégg bu bokkut sa parti fu la ne la ko Sonko def saa ci téléphone vraiment da nga xam ne loolu ay waxi foola Sénégal mm-hmm. na ci foo xamante ne len duñ leen la ñuy xam autorité yi naka lañu def pour construire le mais pour foyee Sénégal Sénégal tolaguñu tolatuñu fuñ koy foyee romb nañ mm-hmm. foofu nañ fexe dimbale béykat yi dimbale sénégalais lépp luñ coow ci Sénégal ñu fay ko

balaa maa de am ñii toog ne jarul xeex jarul xulo pour lan suñu avenir en nekk en jeu suñu bakkan la jaral lépp lu mu jaral ñee ñu ko bëgg a yàqal danañu jaral ñëw danañu jaral loolu bañ taxaw réew mi kenn moom dañ koo bokk nañ joxante cër ci réew mi Sénégal. dëgg la Adama. nañ joxante cër. dëgg la Adama. am na lu ñu naqar trop Sénégal ba instant yi bu ñuy lekk ak lu ñuy naan la ñuy xal lañ nag di ko xalaat ak naka la ñuy def ba nawet bi dox ndekete ñoom fit ne naka lañ def bi ñee ko ci problème boobu lañ nekk. nañ joxante cër nañ ci réew mi. Mm-hmm. waaw maa ngi lay jaajëfal di rafetlu seen émission bi lu bëree bëri nag sama xol fees na trop ah, mais pour le moment au moment où je vous parle su fekkee defaat nañ le point à l'heure où je vous parle Ousmane Sonko waaw am na kuy woote mais joxewul turam ñu ngi koy nuyu. allo allo. allo salaamaaleykum. allo. allo waaw ah, sëñ bi salaamaaleykum maa ah, ngi dégg. waaw ñu ngi lay nuyu soxna si. ñu ngi lay fay nuyoo yéen a ngi ci jàmm. jërëjëf alhamdulilah. xanaa di di masso sénégalais rek wax dëgg yalla di leen masso bu baax baax yi nga xamantene mom lañuy dund man sànq ba légui ma ngi tëdd sama nekk ba sonn yàlla xam na. Hmm. am nakar, naqar am li yàlla lañ dund ba yàlla suñ borom teg ñu ko topp gor sa déet nga topp ko rek topp ko rek di ko tuumaal loo ko lu lu ne ñu teg ko ci dara Ousmane Sonko naqari nañ waaye lépp rek ñu ngi koy dis yàlla subhanahu wa taala même mi nga xamante ne lu nelaw yàlla na ko yàlla génne ci loxoy noonu yi te sàmm ko te aar ko Sénégal fii mu toll ñun waroon nañoo toll leneen vraiment dëkk bi metti na dara amul nit ñaa ngi xëy di tës tës di wut dépasse ak coono yi hôpital yeeg ndox mi lépp suñu état yi taluñu ko lu dul topp benn nit rek hôpital yaa ngi ni boo feebaree doo faju kër yi am na ñoo xam ne ñu ngi si bitti instant yi ñu wax ak yow sénégalais lépp maam ni réew yi réew yëpp a ngi avancé ñu ngi nekk ay détails yu ñàkk fay day nga xamante ne war dañ koo waroon billaay li nekk yëpp te mënuñu koo wax waaye ñu ñaan yàlla yàlla yàlla taxale masala gouvernement bi allahu rabbi li ñu jéem si moom am ndax yàlla ñu nekk dëgg rek la àndal billaay sama xol moo fees parce que lii dafa metti wallaay dafa metti képp kuy sénégal rek yaa ngi yëg loo xamante ne sa xol naq koo xamante ne mënoo ko wax maa ngi déglu ci kàddu ak guddal wallaay képp bu woote rek numéro yooyu yaa ngi noonu di affiché wu euh, mun nga jël euh, woote muy téléphone muy whatsapp ñun nag si suñu gëstu aca ki tamit bugul wax turam allo allo sëñ bi ñu ngi ziar allo ñu ngi ziar bu baax señu bi mbaa nga am jam baax alhamdullah est-ce que mën nañ xam yow nga ngi jokkal yow wa ma ngi keur ma sar waaw ah, yaa ngi keur ma sar waaw waaw japp bu ñu jàppaat ni Ousmane Sonko mo ko gisee ñu ngi am nakar bu baax baax ci li xew ci rew mi hmm. allo. allo ñu ngi dégg bu baax. waaw di naqar lu baax li nga xamante ni moo xew ci réew mi. Hmm. président Macky Sall na xam ne sénégalais yi jiwuñu ko lii. lii nga xamante ni moo xew ci réew mi chaque jour muy teg sénégalais yi aw naqar yàlla na nu yàlla àtteeg moom. na bàyyi président Ousmane Sonko te yàlla tax. sénégalais yi jàmm la ñuy wër jàmm la ñu soxla fan yi ñëpp ñu ngi woon ci jàmm mais booba léegi mu nekk bu teyee ñu ne jàmm am na bu subaa mu mu yéefit na na bàyyi yéefit na gi mu yéefit na baaxul senegal tal nañ leneen lu ay yéefit na chaque jour ah, waaw sëñ bi waaw Ano wi est-ce yow jot nga xam motif bi tax ñu japp tay Ousmane Sonko ah est-ce xam nga motif bi tax ñu japp tay Ousmane Sonko way ñi da dañuy jiñ Ousmane Sonko sàcc li ñu wax comme sàcc la rek Ousmane Sonko sàcc la lool lañ ko ji mais xam nga bu Ousmane téléphone jàmbur te buñ ko joxé mané mais mais nan xool nan xol circonstance yi nga xamanteni mom lañ jële koku lamu def ba waral Ousmane Sonko téye téléphone bi mais même pas ñu toog nekk fii di wax naan ay Ousmane Sonko sàcc la moom a bi loolu la loolu la ñu wax ne liñ ko toppee loolu la rek Ousmane Sonko sàcc la. mais est que est-ce que bu ñu delloo woon téléphone bi jàmm du ñëw. mais bi loolu du problème nañ koo delloo Ousmane Sonko bu ko bàyyi woon day delloo téléphone bi. suñu édition spéciale bi te Pape fan la affaire yi am na keneen allo allo. Euh, am na ñoo xamante ne tey jii bu mbir mi xewee mun nañu wax ne naqaru nañ ko. waaw waaye bu dee dëgg dëgg dëgg dëgg nu mu demee rek la nu mu war a demee rek la demee. allo. allo allo oui. waaw ñoo ngi dégg waaw. ma ne waaye nu demee rek la war a demee te jii nii yow boo defee dara ñu jàppale tëj la. waaw. ay sénégalais gën di xeex ngir yow. ëllëg kenn dootul di def dara. Mm-hmm. waaw waa am na ku génn sànq nee na jeunesse Sénégal ñoo di Ousmane bu buñ ko jàppee dinañ ko génnee. Mm-hmm. man de kenn gi ma doon jeunesse Sénégal. waaw waaye jara Ousmane Sonko jaralu mu toll ni taf talay. jaralu la dara. jaralu ma lu toll ni tàptalaay ni du ma ko xeexal. Mm-hmm. ndax ci liñ ko toppee lépp ci yoon la. Mm-hmm. tëj bi dañ ko war di tëj. Mm-hmm. mais dafa génn base ci dëgg base ci kenn lu mu ci zone Sénégal man dinaa génn rey nit ba pare ne Sénégalais yéen a may at yéen a may génne ci lii. loolu du dëgg du yoon loolu dañ ko fi war a jëlee. ku ne ku def liñ li war a tëjee. mooy pouvoir mooy opposition dañ ko war a tëj. Hmm. amaana boo yiy génn di xeex. Hmm. booy yi xeexuñ ngir Ousmane Sonko moom xam na loolu. Hmm. booy li ñuy xeex mooy daw daw dajji bitiku jàmbur yi daw di lakk station yi képp koo xamante ne sa dara yàq na ci wala sa baay yàq na wala sam da yàq na ci doo xeex. voilà doo xeex mais boo xaaju xaaju booy ñu ngi ci. boo calculer ñi xeex ngir Ousmane Sonko ay deux personnes wala trois personnes. di mhm. si des yëpp seen bopp la ñuy génn daw daj boutique yi gis ngeen loolu ñaata doomu Sénégal ñoo ci ñàkk ay millions. Mhm. mais loolu boo ci bokkoon tey jii nii wala sa baay yàqule ci wala sa ndey yàqule ci est ce naan lii si yoon la. Mhm. mais Ousmane Sonko sénégalais comme nit ñi la nit bi comme nit ñi la. Karim Wade nañ ko Khalifa Sall tëj nañ ko. bi ñu leen toppee dañ koy dañ leen tijji tëj du mm. rëy dañ ko tëj jokk àpp àpp bi bu motee dañ koy bàyyi. Mm-hmm. Ousmane Sonko mooy kan ba naan bu bugg ci élection élection di am Sénégal Ousmane Sonko du moom moo war a mën a yor euh, parti euh, Pastef. Mm-hmm. noo xool ñeneen ñu ko mën a yoree. ci dëgg-dëgg xam na ne xam na ne yoon mooy ko pour mu bokk mais taxaw wax loolu dafa ñaaw. biñ hmm. ko waree jàpp nag du tey biñ ko biñ ko waree jàpp du tey. ah waaw. ma foog ni ñàkk jàpp. amaana nag am na ñoo xam ne dañ ci génn di wax wax. ngir ci bi waaj. allo. allo waaye Ousmane allo. Ah, loolu laa amoon li ma ciy wax képp koo xam ne nee na waruñ ko jàpp waxu benn dëgg dañ ko war a jàpp dañ ko war a tëj jeex na tàkk. man loolu laa am li ma ciy war. jërëjëf jërëjëf.